xabbalat fóon na zawaibun ay jubb yu ne ca bopp ba fóon na aqdaamaha ay dëgguy tànkam àndaw kawar gu gudd jubb yu sax jubb ca kaw bopp di laal dëggu tànku borom wa qabbalat aqdaamaha zawaibun na kawar ga mel suudun yu ñuul ku kawar gu ñuul la xam nga kawar ñuulaaye koy rafetal lu mu nirool ci ñuulaay ka qalbil aashiqi comme xolu ku so ku sopp sopp ndaw soosu almuxtariq bu daa ji lakk nee na ku ko sopp xol ba day tàkk ndax bu ca mënul jot day ñuul kukk lu mu nirool ci ñuulaay ubbi jubbam yu gudd yooyu di def seetal yi wax rek daat fi muqlati min saharin wa adramat fi muhjati min xaraqi wala yazaalu fi riyaadi xusniha eh, yasraxu fikri wa yajuulu ramaqi yi na kam awda at bare na lu ndaw sa dénk lu mu bàyyi min saharin ci ñàkk nelaw bare na ñàkk nelaw gu mu bàyyi fi muqlati ci sama bët ndax di ko xalaat ba mën nelaw wa adramat bare na lu mu taal min xaraqin ci lakk fi muhjati ci sama bakkan maanaa sama xol ndax ñàkk koo jot moom mooy lakk googu wala yazaalu du dañ ah, fikri eh, du dañ sama xalaat yasraxu di di dem di wëndeelu eh, fi riyaadi xusniha ci rafetaayam bay niroog ay dër ay riyaad ay jardin waye joolu tey wëndeelu ramaqi ramaqu baqiyatul nafs baqiyatul xayaa ramaq sama bakkan maanaam sama dund Hmm. wala tasal ama abussu min jawa wa ma turiqu wa ma uriqu de wala turiq wa ma turiqu min dumui xadaqi yowma staka kullun bima fi qalbihi li xibbihi bi tarfihi bima laqi wala tasal bu laaj ndax lii ëpp na deesi ko laaj kenn mun la ko expliquer ba mu jeex arab bu la ne bu laaj nangam dafa la ni fa huwa aktharu min dalik passé na lool walaa tasal bul jéem a laaj sax amma abussu ci li may yulli li may tasaare min jawan ci maanaam mettin ak naqar jawa mooy xusnu dégg nga wa ma turiqu ak e, li muy li muy tuur min dumu xadaqi ci rangooñi sama nagu bët yi kooku bul ko laaj ëpp na laaj bare na ba jéggi da kañ la yow mastaka bis bay jàmbat kullun ku nekk bi ma fi qalbihi ca ci xolam mu di ko jàmbat li xibbihi ñeel soppam eh, lu mu ko koy jàmbati lamiñam déedéet bi tarfihi gisam maanaam ci xoole bi daal mooy ci xaalam mooy tegtale ni ma ngi jàmbat naqar bi ci xolam ngir ñàkk a jokkaloog boobu ku ne di ko jàmbat li xibbihi ñeel soppeem mu di ko ko jàmbate bi tarfihi laa bi lisaanihi mu dellu badal ci bi maa fi qalbihi mu ni bi maa laqiya ci la mu dajeel dem baa mu aat xarafu jar bi maa laq bi ah, bi maa laqiya badalun la muy bi maa fi qalbihi yow mastaka kullun bi maa laqiya mu di ko jàmbat li xibbihi loolu la firee bi maa fi qalbihi bi maa laqiya mu ni maa uzuru man yashkul jawaa li mën wa huwa bi dami aynihi lam yuriqi maa udru man yeskil jawa nee na moom jooy yi muy jooy mun te ñàkk ndax su ko deful woon sax war a jaaxal nit ñi koo xam ne yaa ngi jàmbat sa cofeel sa naqar wi la daal ci tàggoog sa soppi say bët ni kos benn rangooñ nekku ca looy mën a ba tax ñu gëm ko boo nee ah laa kenn du ko mën gëm ma uzru man lan mooy ngàntal koo xam ne yës ma ngi jàmbat al aljawaa aw naqar ngir tàqalikoo soppeem mu di ko jàmbat li man jafaa ci xarit boo xam ne dafa ko fonka di becc ngeel ko mu di ko jàmbat kooku bu bu jooyul lu mu mën lay bu dañ ko daan dangay ngay fen yow doo aashiq ah, di wax wa te moom kat lam yu tuurul min dami aynihi ci rangoo ñi lu mu bëgg a lay bu dañ ko naan déedéet yow génnal ci rangu ushaaq yi bu doo aasif da ngay woote isq aahin ala dicri layaalin salafat lii maaha kalbaariqi lmutaliq fi mahadin kunna bihi ka naxlatay xulwaana fi waslin bila tafarruq aahin wooy ala dicri layaalin ci fàttalik gu ma fàtte ay guddi yoo xam ne salafat passé na lii ñeel ma maaha fekk ma ànd ak moom guddi ya dem na kal baariq mel ni melax al mu'taliqi gu lerxati dafa mel ni melax gu ne raay dem rek hmm. fii mahadin ci place la woon place bu dëkkukaay bu ñu miin boo xam kun naa nekkoon nañu nun ñaar bihi ca dëkk ba ka nax la tey xulwaana comme yaari garabi tàndarma yowoon ca xulwaan ci shaa'ir ba doon ko tudd di fi waslin ci jokkoo gunu jokkoo bilaa tafarruqin ci dudul tàqalikoo ni ki ñaari nax la woon ca xulwaan jokkoo woon te shaa'ir ba tuddoon ayaa ayaa nax la tey xulwaan ah أسعداني يا نخلتي حلواني أسعداني وارثيا لي في ريب هذا الزمان أسعداني وأيقنا وأيقنا أن نحسن سوف يلقاكما فتفترقان muy nee na kooku ma ngi def tajaahulul aarif di dof dof lu woote ni xelam nekkatul fi moom ndax xelam dem na topp soppeem ba tax léegi ma ngi wax ak garab yi ci àll bi yéen yaari tàndarma yii seen jokkaloo gi ngeen jokk na ngeen xam ni da ngeen ko ñàkk man mi noonu laa meloon ak sama soppi nee na léegi dog naa maa ngi wax ak ay garab ci àll arab ñoo mën a dog dog mu ne as idaanii dimbali leen ma yaa nax la tey xulwaan yi yéen garab yi tàndarma yi ci xulwaan war si yaa lii leen ma min rey hada zamani ci maanaam metti metti yi jamono ji tege rëy bu dana nekk bi maanaam chàkk waaye wal maraadu fi xawaadis yu naqari as idaani dimbali leen ma yéen ñaari garab yi le seetal wa ay xinaa wóor leen wóor na leen wóor ni ana naxsan ni ki ab ab gaaf ab musiba sawfa yalqaakumaa dana mas a daje yéen fa taftariqaani ngeen tàqaliko nee ñu nag albalaa muwakkalun bil mantiq nee ñu loolu moom la def Mansour dafa amoon euh, tension mu doon voyagé ànd ak mbooloo ma mu àndal buur boobu maanaam euh, dafa amoon xayajaanu dam xam naa dafa amoon tension juy monte ne ñu tegtal ko ne ko jumaaru nax la daal dégg nga euh, tuusu tàndar ma xobam yu nooy yëjëkki baax na ci lool dana ko faj garab la ci dégg nga boo demee dog dañ ko da ko doon xooj di naan tagara bi station yi mu daal di ni nañu ko wutal kon jumaaru nax lu ñu wër wër wër wër àll ba am ko lu dul yaari nax la tàndarma yooyu ndeke repp nañu ñu daal ko ko daggal xam nga buur lu mu soxla saan ñu dagg genn ga dañu daggee jumaar ba mu daldi di dee moom moroom ma des fa wéet yàggul moom it mu dee mu ñu ni la saa'ir boo waxoon way xana wa ayqina anna naxsan sawfa yalqaakuma fa taftariqaan nilnaa bihi maa nastahi min lazzatin wa daatin wa zilli ayshin fi zilli ayshin daxfaqi azmaana kaana saadu lii musaacidan wa muqlatu raqibi zaatu baxaqi nil naa amoon nanu bihi ca mahad ba maanastahi lu nu xeme moon min lazzatin ci baneex wadaatin ak nooflaay fii dilli ayshin ci keru ab dund goo xam ne seetal dund mu ngi ko def na garab gu yiir ba am ker fii dilli ayshin ci keru ak dund daxfaqin bu di aji naa bu dëll azmaana kaana saadu waxtu wa nga xamee ni texe ga nekk na musaa'idan di aji dimbali liy ñaal ma wa muqlatu raqibi booba bëtu ku nuy garde dinu fuglu maag sama soppe bi dinu fiire zaatu baxaqin boroomu patt la bët ba dafa patt boo daawul gis maanaam amul woon raqib da wal yawma qad saara salaamu azzatin yuqniu min lubna ida lam naltaqi nee na wal yawma tey wute naag boobu tey moom qad saara mujj na salaamu azzatin na yoo azza ba mu nayu woon waayam ja ku ku sayir ku sayir waykat la boo xam ne aashiqu azza daan ci ci ci ci réewu misra ba ay nawaadir ñu di ko ko nettalil ci way dégg nga eh, nee na nuyoo azza rek azzatu mooy alamu ndaw soosu nee na eh, eh, waaw nee na kusayir dafa mënula jot ci arsa mu di ko meseer di ko meseer ba bis nag mu war naaqaam di dem romb arsa mënu ko muñ daal salaamaaleykum salaamaaleykum yaa arsa bëggoon mu àddu ko arsa daal di salaamaaleykum yaa jamalu gëléem gi la nayoone ku sayir daal di fëkk way wa di wax ak gëléem ga ni ko xayat ka arzatu baada alhajri fansarafat fa xayyi way xakay man xayaaka yaa jamalu law kunta xayaytaha ma zilta za miqatin cindi wa ma massaka alidlaaju walamalu layta taxiyata kaanat lii fa ashkuraha ma kaana yaa jamalun xuyiita yaa rajul ma tax kusayiru absata ma ngi mel ni majnuunu layla mu ni xayat ka nayu na la azatu gëleem gi lay waxal xasatu nayu na la baadal hajri gannaaw bu mu la gàddaayee lu yàgg fan sarafat mu daal di wëlbatiku fa xayi wuyul yaa jamalu way xaka ceey waajile waa ji nayul man xayaa ki ka la nayu fay ko law kunta xayay law kunta xayaytaha su fekkoon ne nayu woon nga arsa yow gëleem bi maasil ta doo doñ mukk daa miqatin di boroomu cofeel indi fi man kon danaa lay bëgg ba faw wa ma masaka dootu la laaj it laaju rañaan di dox wala amaloog liggéey kon dama lay daal di teral faaw dootoo liggéey soo ko fayoon rek layta taxiyata kaanat li maa bëggoon rek nayoo bi doon sama bos fa ashkuraha ba ma di ko sant nga xam ni dafa ni xuyita yaa rajulu makaana yaa jamalu remplacé ko yaa jamalu jim wax su fekkoon dafa ni xuyita yaa rajulu kii dof bi dee rek wallahi law xallat diyaara qawmiha waxtajabat ani bi baabin muxlaqi la zurtuha walleylu jawnun xaalikun wa jafnuha lam yaktaxil bi araqi maa salaasatin taqi saaxibaha maa lam takun noonu lwiqaayati taqi nee na wallahi law xalat su fekkoon ni lubna dafa wàcc diyaara qawmiha ca këri ay mbokkam waxtajabat te mu làqu anni walis ma bibaabin ci buntu muxlaqin bu ñu tëj la zurtuha fokk man ma seeti ko rek walay lu tegu digga jawnun lu ñuul la xaalikun lu ñuul kukk lëndëm wa jafnuha te fekk mbaru batam moom lam yektaxil tusngaluwul bi araqin cig fokk ci ñàkk nelaw sax déedéet ma ngay nelaw su ko defee danaa ko siyaara ji ma asalasatin ànd ak ñett ñett yoo xani ni taqi dana fegal saaxibaha seen boroom maa loo xam lam takkul noonu wiqaaya li mu mën a mën a fekk munu ko lam nekkul taqi di ko noonu wiqaaya li mu mën a fekk ba moom miy fegal feel kasara faw bu dul feel feel la jote kasara dara ndax du bokkul ci liraab ba mu bokkul ci binaa la feel ji ñu binaar ci kasra mos nga ko dégg ah feel ji ñu liraab kasra kasra mos nga ko dégg kon nuunu wiqaaya mooy fegal ah, suuf mooy fegal feel kasra soo nee tey dara ba nii mbaa yàddari bu nii nun gi lu fi jëriñ moom bokkul ci feel ji bokkul ci faay ji ah ñu andi ko fu ndax li taqiya al fi'la al kasb wa qiila li taqiya al insaana al lëbs ngir mu fegal la lënt nee nit ki la fegal wiqaaya gi nit ki la wiqaaya ñu ne feel ji la ci kasra yaar yëpp a amma fegal feel kasra moom feeñ na moom noon nga dikk dugg fa moom ñu di ko kasra ngir yaa am li mu bëggoon yaa ci kasra la mën juddoo yaaw mutakallim tey feel it mucc ci wala ñu ni nit ki la fegal lënt ndax dara ba ak xajara su dul woon nuun googu nga bëgg ni dóor na ma nga ne dara bii léegi feel ak lisim lëntoon a kenn du xam dara ba feel la feelu maat la wala lisim la darab bi maanaam asal di ñu xam danga nga ni dóor na ma wala danga nga sama lem nga lënt moomu boo nee dara ba ñu ah dara ba feel xajara bi maanaam mana a tere la soo nee xajara nii ñu ni bi maanaam mana ani waaw soo ni woon xajar yi nag ñu ni xëy na sama xeer wala ci jóg li si mag fiyal kenn du ko xàmmee noonu nga dikk feglant mu ñu ni kon noonu wiqaaya benn ci yaari taawil yooyu sayfin jaasi joo xam ni ka sam saamati amrin ma ngi mel ni jaasi amru bnu maadi kari ba jàmbaari arab jaasiyam ja tudd woon sam saam di jaasi ju doywaar waar ju amu tur ngir jawdaam jeesi ju mel ni samsaamatu am la baatirin ju gaaw ci dagg nga xam ni laayu taqaa kenn mënu ko moyandikoo ah, bi yàlla bin ci yàllab ni ki bi yàlla bin ci ci yàllab ni ki ay mbubbi eh, xarewukaay weñ yooyu wa daraqin ak daraq te mooy tors pakk yi ñuy défendre defoo jeesi ah. wa bayna jambaya fuaad bnu abi sufrata qaati qarab ni lësraq nee na benn bi xol bu ñeme la ci jublu fu xol di ne ci dënn ci diggante yaari wet moom la ni wa bayna jambaya nekk na benn àndandoo bi mooy dafa nekk ci sama diggante yaari wet yi maanaam ci sama biir dënn fuaad bnu abi sufrata xol bu ñeme bu mel ni xolu muhallab ibnu abi sufrata jàmbaar jooju fekk qaati muy aji dagg moom muhallab qara bnil ashraqi qara mooy zahru gannaaw ibnul asraq kilifa xawaarij koo xam ni muhallab ibnu abi sufrata moo ko rey ci xare ak beneen wa farasun ka daaxisin wa laaxiqi yowma rihaani sha'uhu lam yulxaq abbe sama benn àndaale bi ma taxa du ma jekku xare mooy farasin fas warukaay moo doon seen warukaay xare bu jëkk ka daaxisin ak laaxiq mel ni daaxis ak laaxiq fas yu siiw la woon dégg nga daaxis ak laaxiq alami fas yu siiw la ñu woon amma daaxis moom am beneen fas wu ñuy xabra moom seen rawante dàqe ga ñu doon dàqee ba raw am ca ba ba weranteeg fas ya am ca ba xeex juddu ca xeex ba faf diire lu mat fukki at ñu ne ñu arab tuddi ko xar bu daaxis wal xabra ci ayaamul arab yi nga xam moom moom la ñuy nettali lu tuuti jur ay aywa fu ñu ko dajee ku gañe moroom ma préparé fay muy dem ay ati ati at ñu xar bu daais kooku benn façon moo doon daaxis fii nag dafa jublu rek tudd fas yu siiw daaxis ak beneen bu ñu wax laaxiq nga xam ni sa'wuhu aw xelam lefam lam yul xaq mënee su ko jot yow ma rihaani ci bisu dàqe yett yooyu nee na moo di samay àndaale taqdaxu niiraana alxubaa xawaaf taqdaxu niiraana alxubaa xibi xawaa firuhu inda xabadin wa talaq xani fas wawu taqdaxu day xóoyal dégg nga Euh, xawaafiruhu ay weem dëgër na dëgër gu bu dee dox ci xeer day xóoyal niiraanal xawa xubaaxi bi ay safaray xuyantaan xuyantaan xam ngeen ko weñ su tuut soo xaadi bu déeg lëndam bu firee laaf bi danga koy gis mu ne xuy yi mel ni aw safara te fekk du dara moo ñuy wax mu ne bu bu dee dox ci xeer yi wewu fas buy dox ci xeer yi bu ne kocc day mel ni pikk boo dóor ci xeer mu ne xay xooy safara inda xababin cim lagg wa talaqi na ku xel dégg nga ka riixi fii hububihi wa simci fii wusuubihi wa kamahan fii fashaqi ka riixi dafa gaawe ni ngelaw fii hububihi ca uppam ga wa simci dafa mel ni doomu tilëg bukki ni daaba jum rabu met la fii wusuubihi ci tëbam wa kalmahaa dafa mel ni nagu àll fii fashaqin ci rafetaay taar bihi ajuusu fi fi xilaali daariha ah, wa ansani kalbaariqi lmutaliqi bihi ci fas wu mel noonu ajuusu laay jaabante fi xilaali daariha ci biir kër kër ndaw sa dafa jaasu xilaal diyaar ah. dégg nga maanaam ci biir kër ya laay jaar di wa an sani tamay dellu kal baariqi mel ni ak melax al mutaliqi gu lerxati fa in taku zaba daxaltu xasraha wa ka qasiirin suqtuha linnafaqi fa in takun su boobaa ndaw si dafa nekk ni moom mooy zabba malikatul yama malikatu eh, yaman ba bo zabba su fekkee moo mel ni ki zabba ndaw soo su nga xam ne buur la woon daxaltuma dugg ma nit xasraha ba këram ah, ma wasuqtuha ma dal di ko jiital li nafaqi jëm ca nafaq ba ah, mooy yol moome nafaq dégg nga moo di kan mu ñu gas ci xeer def ko aw yoon mu dem ba sore nit man faa jaar dem génn wala mu man faa dugg soo demoon màkkatal mukarrama foofu ngay gisee nafaq xeer woo xam ni kenn xamul fu mu toll ci kaw yoon wa autoroute ba dikk ba gég ca nu ñuy def dal di ko ni përëj bën ba mu sar ca wàll kaar yi yooyu ay anfaq nafaq daal bu dee kanu janaxit dana am nafaq mooy kan boo xam ne dafa dugg ci suuf dégg nga wa ka qasirin ma suqtuhaa li nafaq kas dafa junj xisab sabba ak ba mu ba nga xamee ni Euh, fexeel nañu ko ba di ko bëgg rey te te xasiir nag moo yore moom la amrun joxoon pexe ma moo doon def pexe ma mu ko rey ba mu gisee xasiir mu xam ne ndeke xasiir du ko farag moom da koy fexeel mu dal di daw dugg ca nafaq bëgg dugg ca nafaq ba xasiir dogale ko maanaam lël lël ba dogale ko góor ña dogale ko mu xan dañu koy rey mu door a xaru naan màcc posan bi mu defoon ci loxoom dégg nga ci xisab Zaba la ni daal su fekkee ni ndaw si mum tane ala comme Zaba kenn mën a ko dara nee na maa koy dàq ba mu dugal ko ci nafaqam kom ni xasiir dàqi woon loolu dafa junj xisab loolu la ñuy wax ishaara li xisa rek wa man xamaahaa ka kulaybin fa lahu jasaasu rumxin bi turuq wa man ay la bu siiw wa man ku jéem a xaar eh, ndaw soosu que kulay bin comme kulay bin nu mu mën a xaare ndax arab day wax ci seen masal ahma min kulay bin kooku moo dàq xaar kulay bi kulay rabia dégg nga jassaas ibnu murrata moo ko rey daanañ wax ci sa boobu lu dëgg aywa su ko defee nag la mu li tax arab ni ahma min kulay bin Euh, kuley bu dafa benoon benn petax ci garab nente mu dikk ni xaar na ko te ci seen jom kii man maa ko làq ku ko laal tooñ nga ma masalan loolu mooy seen dundin mu ne nag xaar na petax mi ci xormaam la ne kon kenn waru ko laal moo yàlla def euh, jassaas ibnu murra dégg nga tàntaam daana na ko wax tàntaam am genn gan bu jigéen gu war naaqaam dikk ganesi ko dégg nga dégg nga ba ko defee nag yàlla def gëléem ga doon far ba dem ca garab googee xëcc naka mu xëcc car ba nen ba daal di tàng ma tas nen bi wadd fetax ma jooy eh, kulay bu daldi mer ni ki doon ki ma xaaroon ku ko laal fekk muy naaqa gi rek mu daal di wacc fett ga tar ci pooju naaqa gi deret ci sang ko naaqa ga daldi di riir daw wuti kër ga boroom gis ko gan gi daal di waxu ne ay doxandeemee bon sama naaqa gi ni ñu ko def kulay bu dégg ko maanaam jessaas dégg nga ko ni noppil noppil rek noppi rekk bu soobee yàlla danaa ci rey kuy moo xane dana tax ñu fàtte ko te ke kulay bi la fas yéene rey loolee moo indi woon xare bu dul jeexati kat ci diggante giir yooyu ci bay na Bakar ak Taalib nee nga aywa jassaas ci Bakar la bokk kulay bi ci Taalib la bokk xare Bakar ak Taalib kooku ci ay yaamul arab yu siiw yi te tara bu ci ne nag du jeex ci benn bis dañu koy mayante fayonte muy dem loolu lee moo doon xay bi arab doon dundee moo tax alquran rek ak ak risaal ak yoneen ak nubuwa ak moo leen ci jëlee mooy waskuru i kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum raasidin bu xeej bu di aji tunglu bu ji aji wat junglu bi turuqi ca yoon ya wa laa budda lii minha wa in taxassanat bil ablaqi l fardi wa bil xawaranaqi laa fiha waaw amu ci nag ci way wi il fokk nag mënuma ko ñàkk laa budda lii minha ci ndaw sos wa in taxassanat doonte ma nga sangiwoo ma bi làqoo bil ablaqi l fard boo xam ne bu yàgg la samaw al ibnu aadiya moo ko moom wa bil xawarnaqi wala mu làqoo xawarnaq beneen tata la woon ku ko moom numaanati wala ka xawarnaq qasrun li numaan laa budda lii minha wa in asartu fi e, nablil fi nablil xusaan ah, ok wa in ta laa budda lii minha wa in asartu fi zeyli alxusaami wa sinaani al azraq azraq la war doon minha il faut mënuma ko ñàkk fa in wa in asartu damay xala fakk taloo fi zeyli alxusaami ci mbicci jaasi ju gën ñaw yu ñu may nara reye wa sinaani wala weñu xeej laay fakk taloo al boo xam ne dafa ñaw dañu ko daas mu weex ba faf bu bu yeboo loolu sax lañu ma tungloo ma di ca fakkatal waaye nag ma ko ñàkk su booba fa in zafirtu bil muna min qurbiha baalagtu fi siyaanati l irdi naqi bu booba fa in zafirtu su ma gañee bil naa ca mébét ya joti ci moom na ma bëggoon ah, min qurbiha te moo doon jege ko kon baalaxtu ma eh, xiiral nag bu baax fi siyaanati l irdi ci ñoŋal der an naqi buy aji set kon it du tax ma def ca lu yàq deru gor wa in baqitu misla ma kuntu fala ziltu baghida madjaci wa numruqi ashunnu kulla gaaratin shacwa ala man yaxmiha fi miqnabin wa faylaqi wa fi xamisin min xiyaari yacrubi dawi rimaaxin wa xuyuulin subuqi min usrati bani mulukin fahumu atwa'u li min saacidi wa marfiqi wa in baqitu su ma desee nag mënuma am li ma bëggoon te mooy jege ko su kon su ma ko mënee jot nee na nee na kon jàmm am rek waaye nag ma daal di wattu der deru gor du ma def lu yàq deru gor amma bu ma ci jotul wa in baqitu su ma desee misla ma kuntu comme ni ma nekkee mënuma ca jot jàmm du amit fala du ma deñ kon baxiida madjaci di aji bañ sama tëddukaay dootuma tëdd mukk wanum ruqeeg sama ngeganaay kenn dootuma fekk ma ngeganu tëdd xanaa lu may dëkke ashunnu damay tasaare kulla xaaratin bépp fasi xare ala chawa ayu tàqaliko mutafarriq samay fasi xare laay tasaare ala man yaxmihaa ca góor ña ko bëgg a làq ba duma ko gis kon dootuma noppalu fu ma toll fii miqnabin wa fayla waana mooy mbooloom fas yooyu miqnab ana miqnab faylaq mooy xit at jay si miqnab al jamaatu min al xayl faylaq mooy jay si fi miqnabin wa faylaqi wa fi xamiisin ab ci lël xamiis lëlu xare dañ koy xamiis ci kaw nañ ko daan séddalee xamsatu ajza rek bu ne ci kanam bu ne ci gannaaw bu ne ci ndeyjoor bu ne ci càmmoñ ak bi ñuy wax xal bu mooy ba ne ci digg ba te moo ci la raïs bi daan ne wa fii xamisin min xiyaari yaarubin ci tànnee fi yaarub maanaam arafi arab yi giiru yaarub hmm. ibnu yasub ibnu qaxtaan zawi yu di waroomi xeej wa xuyóolin tey boroomi ay fa subuqin yu di way gaaw yu mën a jiitu ci xare te ñooña min usrati ci sama famille lañu bani muluk ndax moom mii koy wax ci bani muluk qabila ci maghrib la bani muluk la bokk kooku ci euh, maghrib la bani muluki fa hum ñoom bani muluk waxuñu doomi ay buur de déedéet banu muluk tur qabila la banu muluk ci maghrib fa hum ñoom banu muluk atwau lii ñoo ma gën a topp ñoo ma gën a nangul min saaidi ci sama xasabu loxo bi wa marsaqiik sama ceeñ